man man Modou Faye laa tudd rek man Modou Faye laa tudd kër bu ñu koy noonu mu bale fii yëpp ah dem ci ah kii bi man ci karam la maa ci karam waa bi ma xëyee moom mu bale ma baj ko fii mu bay ko fii muy bale ma dem tool ba ñëw ma fekk ko fii muy nekk moo xale yi ñu ne ko ba pare ma itam bay ko fii encore dem ci penc ba pare toog ba mu yàgg ba ci kanam tuuti ah ma dégg yuuxu yi ñoo ñëpp ñoo ñëpp daw ñëw fekk ko ci néeg bi moom moom benn bool bi mu nekk ci la bi bopp bi nekk ci suuf kam boobu néeg bi dafa tëdd man ma ñëw yëkkati ko yëkkati bopp bi teg nii ma ma deret bi génnaay bi ci biti sama gis deret ah, ma door ah, ma door aasu ñun dafa dee dafa dee dafa dee dafa dee ah, ma de lii laa ci am te moom itam wax dëgg yàlla sant naa ko tey sant naa ko suba fii ba leer dama ko sant yàlla fu mu nekk yàlla na seet ci kawam bu toppee sama xol bi rek ah du sonn fale sonul fii de xaw ma ci xaw ma ci kenn ci àllaaxira nag kooku de wàllu yoon moom laa ci am moom laa ci am mosuma def daal li ma naqari daal bu dul keroog bi ma tàggoog moom waa dëgg man de loolu laa ci am loolu laa ko gisee man sant naa bu baax loolu laa ci am loolu laa ci mën a wax de waaw rek yan jamono la am mbir mi. ah ah man xam nga ah ah. ah. waaw talaata la am. Mhm. Hmm? ah daanaka nag a nekk xaw ma amu montre xaw ma heure nag a nekk keroog la man xam ban heure moo jot nag. Hmm? déggoo li ma la wax hmm. damaa xëy dem tool ah, mu bàyyi ko fi muy bale muy ndekk ak xale yi. ma ñib si dem ci néeg ba tëdd mu dem ci penc ma afoo na yuuxu bu ñu toogee bi tuuti nu dal yuuxu ma ñëw gis ko noonu rek laa ko gis woon fay mhm. ko kii la ah loolu nag loolu nag xaw ma ko de waaye dëgg yàlla xaw ma ko nag xale yeween man xaw ma meex xaw ma lu ko naqari mm, mm, man ka teguma ko se muy moom teguma ko se muy moom mook mosuma ko muy moom nag wax rek. a ni ñu hmm? ah, ko waxee daal bu dul yàlla man xam ne lu mu ci mën a wax parce que moom moom ci boppam moom ci ko dara moom. ñu xamal ko daal même fu góor gi ak jigéen bi yëpp ak ndey bi yëpp kenn xamul leen dara waaye rek yaa xam kenn xamul leen dara ah, ah ci li ma yaakaar waaw waaw parce que ko xamante ne il nit ne ma sa doom bi nangam nit ne ma sa jabar bi nangam ah ah déedéet daal xam naa mbir mi moom mbiru ah, suñu borom laa ko teg parce que kenn moo teg kenn ku la tegu daal nga teg ko dara mun loo ko nga mooy tege rek mu am fu mu jaar mu jaare ko foofu rek mu am wax dëgg teguma ko kenn de kenn tegewuma ko wax dëgg yàlla parce nit mën a def dara bu yàlla deful kenn mënu koo def loolu laa ci ñoo bokk baay. maanaam papa yi nee nee ñoo bokk baay mooy sama mag gis nga kii ak ak yaayu kii ñu ré ré kii am bu ñu nekkee fii si ruq bi ñooñu ñëpp kenn juddu ko man ak kii ak sama yaay ak ak ak nda kii yaayu kii mi nii bu dee at buy dee ci ci ci kaw ci kaw yaay bi la nekkoon ni ni ni yëkkatuma sama yaay xamu ci ci man dara dara dara yaayu kii ma kii moo ma yar bu ma déggee ba loolu ba man naa waat kam bu ñu tegee kii. xamul leneen ay mosu koo xam liggéey rek man naa ko waat ki ma ma yar gis nga euh, suur bu ñu euh, affaire bi xewee sama doom bi moo ko indi fii añ ci nekk bi sama doom bu see gisul woon mère bi euh, suur boobu ma xëy dem hôpital sama jabar yóbbu ko hôpital balaa may ñëw fii ay deux ma ñëw root fale ay ay wee wee ndox pour ma yóbbu ko wala pour roose ñu yóbbu ko fa ma roose ba pare ñëw tëdd sama néeg bi bu ma tëddee nii rek ma degg yooxu yi ay ay ay nga tukki buntu bi ma jóg gis ma ñu commencé ko bus fii ma ne lan la lan la mu ne yaay bee dee mi anamu mu ne mu ngi ci néeg bi ma ma def ni rek gis mu tëdd ci néeg bi damaa waaru keroog. mu ne defa xaru defa xaru defa xaru parce que man moo ci dara loolu laa ci am de kii bu kaamet ba nekkee nekkee fi mën naa mën naa ko teg kii kii kii du def nit lu ko naqare moo ma yar bu ñu nekkee ci roq bi ñii ñëpp kenn ko fi man ak moom ak sama yaay ak yaayam kese kon kii xam naa ko. loolu rek laa ci bëgg a wax.